Maroc boo mayul daan am ay njeexital ci marché bi fii ci réewu Sénégal ndax yenn produit yi di jóge Maroc léegi mu jafe fii ci réewu Sénégal lii mooy gis-gisu waa UNACOIS Yeessal ñuy sant rekk seen naataango commerçant yi. ñu teel a jóg ci mbir mi ak i pexe def seeni commande ci yeneen réew yi laata Sénégal di jeexal li nga xam ne moom la denc fi mu nekk nii ci stock. diggante màggal ak léegi li ci li nekk Sénégal yaakaar na fii ba gàmmu gi di jàll kenn sañul wax ne dana manqué am na fi. li ñuy ñaan kay mooy euh, commerçant yi ci seen jëm bopp ñu am xereñu teel a rabitaayu vers Hollande ak yeneen dëkk yi ba cohabitation bi bañ a yeex ndaxte bu yeexee rek pénurie am pénurie nag fu mu amee wax dëgg yàlla marché mënuñoo fexe ba du seer. inakwa ñoo ngi nag tëkku commerçant yi nga xam ne yàkkamti nañu jëye am biti réew ba ñu rek yokk njëgu produit yi ñu dundee ñoo ngi leen xamal ni li xew Maroc warta nekk lay. liñu ci war a wax rek toujours commerçant yu nekk ay comme ni ñu koy waxee toujours a jaay marchandise bu primé bañ a def contrefaçon bañ a yokk ay marchandise ci moment boo xam ne situation moo tax. gis-gisu waay naa ko yeesal li ñu jànkoonteel si géeru Ukraine bi waroon a tax Sénégal gën a farlu fexe nu muy bayee di dundee bañ a rek wékkooti si yeneen i réew. Sénégal mënut a mucc mukk ci situation bi te nekkul di bay li muy dunde tant amuñu li ñuy bay li ñuy dundee ñu di ko bay. réew yi ñuy dépendre saa su amee problème rek dana répercuté wu ci sunu dund. si fàttali bu weesoo produit yi ñuy dundee yi di bawoo sa réew Maroc Maroc a ngi dugalee ci fii si réewu Sénégal lu mel ni engrais fer acier ak ay équipement électrique ak électronique.